بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على رسول الله مبقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديالو تلين نيورك أم لول نيو أمات سنو جوتاي يجي دي أسلف مع القرآن منك جوتاي مجالس وي جوتاي القرآن له نيو كوي دفعي القرآن جي نغا خمني مزودي كورا او سنغال بيت القرآن في السنغال ci njiitalal sunu mbokk Cheikh Abdel Aziz Camara di sakku ci mbokki alquran yëpp ñu ñaanal leen ndax jéego yi nga xam ne ñoom moom la ñu def ba yéen ngeen di ko mën a am fu ngeen nekk ci adduna gi te feyoo leen dara ñoom yeeyoo ñu ñaan bu baax a baax yal na yàlla barkeel te ñu ñëw ci suñu ñeenteelu jotaay ci a asalafu ma alquran ñu war a àndaat ak kenn ci mag ñu baax ñi nga xamante ne leen ci ay ndénkaaneem nga xam ne képp ku yëngu ci alquran al karim dafay jaadu nga xam ko mu nekk mag moomee nga xam ne gëstukat yëpp xam nanu ko te miin nanu turam lool muy Malik bun Dinaar rahimahullah yal na yàlla yërëm ko Malik bun diinaar dafa am woote gu mu def oon waaye am ay ndénkaane yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci alquran al karim yëngu ci alquran baat boobu la ñuy jëfandikoo ndax ndonga ba ca daara ja ca la seriñ ba koy jàngal ci la way jur ba jël doomam joxe ko ci daara ja ci la waaye képp koo xamante ne sopp nga alquran wala boole nga sa bopp ci xuddaami kitaabillahi subhanahu wa taala ndax ñàkk bokk ci alquranil karim wóorut kon képp koo xamante ne suñu tuddee ñooñ alquran nga boole ci sa bopp déglul malik bun dinar rahimahullah dafa ne woon yaa xamalata alquran dafa woote mu ne yaa xamalata alquran yéen nga xam ne yéen a mokkal alquran yéen ñi jàng alquran yéen ñooñ alquran yéen ñi nga xam ne alquran téere la boo xam ne yàlla daf koo wàccee pour yéen yaa xamalat alquran yéen ñi mokkal alquran déglu leen malik bun dinar lu muy wax mu ne maada zaraa alquranu fi qulubikum la ilaha illa mu ne yéen ñi mokkal alquran di soo xoolee ci biir wax ja dina la leeralal ne même ki mokkalul alquran donte ki mokkal benn saar yaakaar naa jullit bu nekk gën jaay tuuti mokkal nga benn saar yéen ñi mokkal ñaari saar kon ñoom la namm ci wax ji parce que wax ji dafa firri boppam ca biir namm ci kese ki nga xamante ne tari na alquran al karim maanaam képp ko xam ne bokk nga ci ñooñu mu ne maada zaraa alquranu fi qulubikum lan la alquran jiw lan la alquran jëmbat ci seen xol yi képp koo xamante ne am na loo xam ci alquran laajal sa bopp Malik bun Dinar nee na lan la alquran jëmbat ci seen xol yi fa inna alqurana rabiul mumin ndax alquran moom mooy naatal xolu jullit moom mooy jardin jullit bi allahumma jaalil qur'aana rabia qulubina mag ñi alquran moo natal sen seen xol yi sunu meraan alquran la ñuy jàng pour nu giif alquran nuurun li jamii alqulub nee na fa inna alquran rabiul mumin alquran moom mooy naatal xolu jullit bi mu ne kama anna algaytha rabiul ard comme ni nga xam taw moom mooy naatal suuf parce que taw dafay ñëw fekk suuf si wow koŋ suuf si daal di dee yàlla wàccee ndox ca asamaan su ko yàlla wàccee mu ne fa inna allaha yunzilu algaytha min alsamaai ila al ard ndax yàlla dafay wàccee taw mu jóge ca asamaan dal ci suuf fa yusibu alxasha su suuf si suuf si taw bi wàccee rek nga gis lan gàncax gi commencé génni fa yusibu alxasha fa takuna fihi alxabba nga gis gàncax bi commencé génni ya war a meññi commencé meññi lam la bëgg a jox ci misaal mu ne fa laa yamnauha natnu mawdiiha nee ne suuf si bërëb yi nga xam ne sax dafa salte woon wala bërëb yi nga xamante ne dafa am leneen ak leneen lu ca nekk nee ne du teree mukk gàncax ga daal di génni ba ci yàlla wàccee taw ba rek te soo xoolee ci suuf si përëb bërëb yi nga xam ne ñoom ñoo gën a salte foofee la gàncax yay gën a rafetee mu ne fa laa yamnauha natnu mawdiiha la nga xam ne moom mooy saltewaayu bërëb ba du teree lan gàncax ga mu def lan an tahtazza wa taxdarra wa taxsun du teree gàncax gi mukk mu daal di an tahtaz ay nama wa taxarrak du tere mukk da ngay gis gàncax ga ak lu mu ñàkk-ñàkk doole dafay bëtt suuf sa daal di génni wa taxdar mu daal di verte wa taxsun mu daal di rafet li mu bëgg wax foofu mooy nit a ngi taxaw naan mënumaa mokkal al alquran ndax liggéey bi wala jamono ji wala lii wala lale mokkal naa alquran waaye mënu ma cee naafila ndax awu ma jot fii kenn mënu fee baaxee ndax Dakar lii wala dëkk sangam lii mu ne la loolee ngay wax dee du lay laa udra lana laa udra lana kenn ci ñun amul amul ngant nee ne yàlla ba mu xasee ba wàccee taw ci asamaan mu laal suuf si benn gàncax du naan fii de mënuma fi sax nee na bërëb ak lu mu salte salte maanaam dëkk bi lu mu jaxasoo jaxasoo lu nit ñi dëng-dëng yow mi bëgg baax waroo laa teree baax parce que bërëb ba lu mu salte salte gàncax gi daf koy romb daal di verte na mu war a mel mu mel ko kon dëkk bi lu nit ñi bon bon wala li nit ñi dëng-dëng yow ci sa bopp da ngaa war a góor-góorlu nga daal di dund sa alquran al mu ne fa yaa xamalat alquran yéen ñi nga xam ne yéen a mokkal alquran parce que taw bi yàlla daf ko wàccee ci asamaan mu daal di jiw mu daal di saxal la nga xam ne moom mooy gàncax yow ba alquran wàccee ci sa xol lan la alquran saxal ci sa xol maada zara alquranu fi qulubikum lan la alquran jëmbat ci sunu xol yi ñun ñi nga xamante ne nee na ñun ñooy wuyyoo la nga xam ne mooy ñooñ alquran al karim ayna ashaabu suratin ana ña nga xamante ne mokkal nanu benn saar suratul fatiha la سورة النصر سورة الفلق سورة الإخلاص أنا كي خمنا موكلنا جزء عمة أنا كي خمنا موكلنا مجادلة مي قد سمع بناس أنا كي خمنا موكلنا أحقاف بناس أنا كي موكل ياسين بناس أنا كي موكل مؤمن بناس أنا كي موكل مريم بناس أنا كي موكل أعراف بناس أنا كي موكل بقرة بناس أنا كي خمنا جنغنا تيري بيب يب يب ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ جينا بنا موكل تيري برم بسبحانه وتعالى nga xamne ay diglé ak ay téré ñom ñoo ci nek lan القران لن لا صوبتي يو كون لاج لا بو خامني نيون نيب كوتي نيك نا خولات ماذا زرع القران في قلوبكم من اين اصحاب سوره انا نيغا خامني نيوم موكال نان بن سار خام نانو بن سار اك لونو نياك نياك خام امنا سار غو خامني خام نانيو ني سار بي دي لي لاي واخ اين اصحاب سورتين انا نيغا خامني موكال نانو نياري سار ماذا عملتم فيهما ماذا عملتم فيهما lan ngeen jëfee ci ñaari saar yooyee ayna ashaabu suura ayna ashaabu suuratayn ana ki mokkal benn saar ana ki mokkal ñaari saar Malik bun Dinar nee ne lan nga jëfee ci ñaari saar yooyu mbokk yi lii la salaf xamoon lu ñu mokkalagum ci alquran al karim dañuy góorgóorlu laajte xam lii lan lay wax suñ leen ko waxee rek ñu daal di góorgóorlu daal di koy jëfee alquran jàppee wuñ ko woon loo xam ne da ko war a mokkal rek loo xam ne da nga ca war a julli rek yem ca message borom bi jalla wa ala la saar wu nekk dafa am lu muy wax saar wu nekk aw message la góor-góorlul nga xam saar wii lan lay wax nga daal di koy jëfee lii la Malik bun Dinaar wax kon mbokk yi tey bind Malik bun Dinaar rahimahullah mu ngi noonu nee na yow mi mokkal benn saar yow mi mokkal ñaari saar yow mi mokkal ñetti saar yow mi mokkal ay xizib yow mi mokkal ay ajza yow mi mokkal téere borom bi jalla wa ala yëpp maada amiltum bihi maada amiltum fii lan nga jëfee ci alquran al karim kon alquran ginaaw ba nga xamante ne xam nga ko na nga góorgóorlu jëfe ko kon mbokk yi lii mooy asalafu ma alquran sunu jotaayu tey jii nii mooy sunu ñeenteelu jotaay dafay jaadu ñun ñu defar sunu bopp xoolaat sunu bopp ñun ñëpp ñu ànd xoolaat sunu bopp lan lanu jëfeegum ci téere borom bi subhanahu wa taala balaa nuy geesu leneen balaa nuy xool leneen yal na nu yàlla buur bi subhanahu wa taala fayal kenn ci salaf yi nga xamante ne moom la ñu àndal tey muy kenn ci magi démb yi nan la ñu doon dundee alquranul karim ñu ànd ak Malik bun Dinar rahimahullah yal na yàlla fayal nu ko jot nanu message am tey jii nii kon mbokk yi nanu góorgóorlu bàyyee xel lii nga xam ne moom la nu mag mi wax lépp lu ci jub yàlla buur bi subhanahu wa taala la lu ci dëng nun la ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن رقسان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم